mais nous avons le chef de l'État gardien de la constitution ak nu mu faydaalee nu mu nous rek méridien président nous avons wax électorat c'est un électorat féminin sans les femmes score bi mu donc nous comptons encore sur lui que concrétisons le centre de formation Je man waxuma sax am participer mais j'y participerai physiquement

parce que seen wax amna solo de seen titre yi aussi day dal duñu bëgg président Macky Sall nu mu koy defal jigen ñi te yag ko defal jigen ñi ñu concrétiser suñu centre de formation bi nga xamni duñu bëgg mu nekk ben rek nak ci Sénégal parce que nak kuy sëdd sa borom sa morom sa bop do bëgg lu ñaaw te man ku ma gis xamni ne bëgguma lu rafet ku ñew Salimar Couture ñew sama kër ak yeneen ak yeneen man dama bëgg lu rafet mhm. janguma ñaw luma duggal ci ñëw sañse ngon nak lu rafet la xam te du doon du doon centre bu ñaaw de euh, centre bi fay doon centre de formation bo xam ne mën nañ ci boole par exemple lo loo jumtu kay yu jigen la parce que ñaw deug la sañse deug la mais bo amul dal la di nga so soo coiffewul wala nga léttu di nga genn ngoon sañse dafa am lu mu àndal formation bi mën na am formation lépp loo xam ne day dem ci jigéen ci yére ci dàll ci coiffure te loolu déjà am na solo ku am dàll am coiffure dàll moog yi ànd ñun mënuñoo dem sa anoo saak amee ah, bu ñu amee dàll ak saak ak bopp bu rafet ak ay bijoux pourquoi pas qui ay artisans et nous nos artisans ils sont très doués au Sénégal. Je suis 10 millions déjà injectés injecté au départ mais par exemple pour ne il faut que ça soit une étude parce que si je parle comme ça euh, à l'improviste parce qu'aujourd'hui, les choses changent un entrepreneur mu defal un devis mais dans deux mois le ciment peut grimper dans deux mois le béton peut suivre et le fer vous savez donc le bâtiment c'est tout un ensemble mhm. Ce n'est pas le ciment seulement il y a le sable il y a le fer pour commencer d'abord le le soubassement et ensuite il y a les portes qui viennent, il y a la menuiserie, la, plomberie, l'électricité. Je connais tout par cœur parce que <laughs> je, suis habitué à ça. donc loolu lieu de laaj ñu il y mmh. salle de classe c'est important parce qu'une salle de classe ce que ça demande en financement dix salles de classe demandent 10 fois plus. donc on attend de faire une étude certes il nous faut combien de salles de classe au total certes corps de métier il y a des nous évaluer que les temps lay moi man j'y contribue avec ma modeste somme avec mon frère et mon fils et, le ministre de la justice devant vous il a parlé donc vous nous seetee lu xayma on le présente au président de la république donc nous nañu terrain bi ba pare waaw Alioune Mar may terrain bi ñu Rufisque Ouest koy la maye terrain bi xamaguñu aussi il y a aussi le le la surface du terrain aussi qui joue par rapport au nombre de salles. petite enfance oui, nag. petite enfance bi li ma leen yéenee parce que boo gisee tey ma euh, maternité je me soucie déjà de la mère et de l'enfance parce que ay xale ñooy judd ci maternité bi ku xalaatul xale doo tabax maternité pour mu di fa juddu petite enfance oui. bu yalla y mayee ba ci kanam lima ma bëgg ma bët ci aujourd'hui mooy améliorer conditions de travail yu maternité bi kooku dafa bok ci samay projet maanaam relever plateau relever plateau bi parce que bu dul loolu du jëriñ dara boko ko li tax ma joxe ambulance médicalisée au mois de juillet dernier parce que dama bëgg a tout le temps bi ñuy door a commencé euh, maternité bi c' à c' à un niveau c'était à un seul niveau dem na nekk deuxième niveau pour loger la sage-femme pour mu mën a euh, jàppale ñi nga xam ne dañuy wusin si ay xaaju guddi bu dëkkee si sori du ma ñëw ñëw raw la jigéen ñi. Mhm. j'ai pensé à ça ma def étage ci kaw mu ñëw dëkk fa. ñu jógewaat ci loolu indi naa euh, ambulance te man bugguma ci am bugguma ci am du tout du tout. nañu te ngeen ñaanal ma aussi parce que lu ma am yéene naa ko sama dëkk muy Tëngéej te xaaruma dara parce que ba ma koy def yàqaaruma woon dara lu ñëw def ma ci fekk ngoon nag yéen tam ngeen def ci seen loxo gën ma may courage parce que ñun ñëpp ñoo bokk Tëngéej suñuy doom rek ñoo fi nekk yéen seeni rakk yéen fi nekk ñuy ñaan seen rakk yii tey ak ñii nga xam ne ñu ngi door a sëy wala seen doom yuy màgg gu ñu ñu màgg ba ëllëg ñu tekki dara ci dëkk bi. xam nga que ci divisé lolou ñu tardel bu mais on voit aujourd'hui sante yalla rabbil alamin aujourd'hui gis cohésion bi ñuy def ni ñi and nek score bi ñu am est-ce que nous sommes ko am mësuñu ko am ngon sommes jubóoli ci lepp xat ñu and nous benn amal ngaño bi def ñoy tardel nous wax ñu ne